Medina Fall ñëpp xëy ma bees taal ba Cheikh Fall demin laa laa woon doublé une fois waa kër naan ma bàyyil tu n'as pas la foi ma takk leen sapika ñu may fayal sixième saramat anglais moom sixième ngis la was noyam man gis na visit laa daan am ngis la was noyam a jappi jappi nyami nyami achuku chuku eh achaka chaka atorojo morojo amorojo torojo madame la maire monsieur le préfet nu ngeen gisee kooru ren gi non mënta yomb parce que feebaroo dara jotu la amoo naqar amoo lu la metti nga am loo lekk am loo naan ñeme woo ko lekk ñeme woo ko naan franchement mënul yomb loolu yàlla rek moo ko ñeme technique ah, waaw <laughs> xam nga climat bi moom tey day neex tey day tàng suba mu sedd moo tax nu ko yàlla suñu borom wàccee rek noonu lañ koy wooree rek waaye nag kooru démb gi moo gënoon a neex koor tey tey moom dafa tàng de. tey moom saf na sap. déedéet waay waay ñun ma ñaanoon naa leen ko de waay waay waay waay bul def lii waay waay. lan déet waay waay waay lan waay yow tamit ah yow tamit ñaanoon naa la ko de. mbir ki waa xool xool xool xool soxna si moom tamit waay déet waay Ada ñaanal naa leen li waay Ada yow da nga am sama kersa waay xool ko xool ko xool ko xool ko waay waay waay waay ah. waay yegg si waay ñi ñoo neex. waay waay xool xoolal ma Assane. waay waay xoo waay Assane yow tamit ah. Assane weeru koor la nekk Assane waxtaanoon noonu ah ah waay waay Assane Assane weeru koor la nekk ah waay xool xool xoolal ma nii rek ah non déet waay ah ah déet waay déet waay yéen tamit ah. waa ki kan la. gis nga la maire. <laughs> gis nga eh, namul bu la de. namul bu la moom ko de. loolu ngeen wax de. ah kontaan naa si yéen nag. Ah. <laughs> yéen laay jàppale Adama déggal Assane mbir ki maa bëgg si yéen. ñoo la gën a bëgg de. waaw gis naa nag la ma waxante woon ak yéen ba koor di commencé ba léegi yéen a ngi koy sàmm. te ngeen tama yi te ngeen dënd yi. dara riirul si weeru koor yi kontaan naa si yéen nag. monsieur le préfet ni nii. déedéet kay bala biñ ko fi affecté yàggul. ma ne woon nag naa woo sama am di jàmm yi ñu xamanteeg ñoom waaw ma monsieur Ba mooy préfet bi moom lañ fi indi nii madame la maire moom moom xam nañ ah, ma ne buur waxal ak moom adduna yëpp nangu nan yow mii la jiital ci digg gox bi dëgg tund yu wër tund yëpp xam na ne yaa fii buur yaa fii bummi yaay lépp yàqu ko de ba tax na nag mm-hmm. kii di sama rak mbir ki laan eh. waxal préfet kii mooy kan wax ko ko kii eh. bac plus cinq la am large te yaa ah waaw waaw sa kaw alors ñun ay comment tu vas yàgg na maa ngi nii nga wax ko sama rakk ji di Assane Assane mi DG la woon ci benn société déggal lii kii bee fayit société bee fayit moo tax mu dellu si waat. tamuy dëgg ca sabar ya waaw. même bu faylu woon maa nga ci. monsieur Ndiaye sabar sabar maa ngi alhamdulilah man mii seen mag nag buuf. kii nag jarul sama la koy présenté kii mi ngi il est licencié en droit. ah bon. gis nga de. allez ziar enchanté. ma ne ko ñii daal ay ndaanaan la. enchanté ravi de te connaître ndaanaan police. merci ok jërëjëf. waaye nag fekk si nan la ca la nga bëgg. no aj sabar yi ndax koor gi teg galeñ yi ndax koor gi waaye nag sunu soxna yaa ngi ni taalagu ndogu de gis nga xanaa rek nu woole ci ngéwél nga wuy si nu ci ngéwél ah ta sa romba san ba sa xij kii sama ndal la sama ndal la sama ndal la sagu sagun sakun sakun sakun kun sakun kun sakun kun kun ran ba kin ura sakin kinda ura sakin sakin ura kinda ura sakin kinda kinta kinta kinta kinta kinta tas mbax ura pàkk diriñ loolu la de bi ngeen dem ngeen passé bu leen dajee waaye li la la li la la kii gaynde la am gaynde moom mi toog di koomi leen gaynde la non non non c'est bon c'est bon kii euh, monsieur Ndiaye. Euh, monsieur Ndiaye sànq. Euh, may leen ko waay kii. monsieur Birkilaan Birkilaan waaw. Eh, seulement sànq dafa dafa fecc n'est-ce pas tu vois. waaw mu mu daaneel. Mhm. n'est-ce pas dafa daaneel. dëgg la. non mais daaneel bi je trouve ça que dafa xaw a gàtt. dafa dafa wàcc. waaw c'est que bàkk bi ma ko bëggoonoo moo di rambata sambax bii. waaw waaw waaw effectivement. voilà euh, góor gi. Euh, waaye yow yow yaay délégué bi délégué de quartier bi mais nag dama la bëgg a xamal ni dama xees ni parce que sama papa pël la. Hmm. moo sant ba. waaw waaw mais suma yaay mbuub la sant. Hmm. mais bien sûr. moo tax euh, xam nga man juste bon au fait dem naa ba Finlande. ci xeetum pecc parce que aha aha waa dégg nga loolu je suis un ah. spécialiste daaneleur là et je daanel très bien moo tax en daanelant mhm. je veux que les daanel mhm. bon en général ñuy daanel par exemple téléspectateur bi lay seetaan <laughs> wala bon soi-disant nit ki nga xam ne sa soppe la <laughs> du dëgg moo tax gis nga instant bi ngay daanel euh, fan la fan tolloon ci daan bi fan nga tolloon ci bàkk bi maa ngi toll ci rambataa sa mbax bii bii taw rambataa sa mbax bii bii bii raw rambataa sa mbax bii mbataas gin kaay bataas gin bataas gin bataas gin bataas gin makakin war a nammaxin nammaxin tawraaxin gin gis nga instant boobu nga ne nii nag nga yem nii dafa gàtt gis nga bi nga ne nii da nga ko waroon a tóoj ba ci kaw dafa war a yéeg gis nga daaneel day set gis nga bu yéegee ba ci kaw mais nga wàcce ko ci ginnaaw nga toog ndaan rek